wa ala alihi wa sahabatihi ajmain mbokki auditeurs rajo Kepar ñu ngi leen di nuyu ci biir réew mi ci biti réew mi di leen ñaanal yéen ñëpp jàmm di ko ñaanal adduna si ñaanal way tawa di suñ borom saafara leen way tukki yàlla delloo si leen kenn ku nekk la ko taxoon a tukki buy ñibbisi fekk ànd ak loola ñi feebar nekk ci lali hôpital yi yàlla delloo leen ci seeni kër ñi nekk ci ay xat-xat xeetu xat-xam bu mën a doon ak ñi nekk ci prison yi yëpp yal na yàlla yërale leen kon mbokk yi gannaaw nuyoo boobu ñu ngi fas yéene ñëw ak yéen tey ci émission bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee leeral diina tey nag dañu tànn ñaari tomb yoo xam ne dafa méngoo ak lii nuy jàll ci semaine bii ba ñetti tomb bu ci xajee tomb bu njëkk bi mooy li ñuy tuddee al intixaar wolof di ko wax xaru te mooy nit ku jékki-jékki faat boppam loolu mu ngi bokk ci bàkkaar yi gën a màgg ci lislaam alquran daf ñu ko tere boo demee ci saar wu ñuy tuddee suuratu nisaa muy saaru jigéen ña laaya ñaar fukk ak juróom ñeent suñ borom daf cay wax ne wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima bu leen di rey seen bopp ndax suñ borom mi leen bind dafa am ci yéen yërmande mu teg ne wa man yafal dalika udwanan wa zulma fa sawfa nuslihi naara wa kaana dalika ala allahi mu ne def loolu nag ci boppam jalgati bakkanam ee boppam tooñaange googa dana ko yóbbee ëllëg bu taseeg boromam mu dugal ko ci kër goo xam ne yàlla nañ ci yàlla musal moom la ñuy tuddee annaar kon laaye boobu ci suuratu nisa muy vingt neuf doy na ci tegtaloo wane ne lislaam dafa xaraamal nit ki rey boppam naqar wu la mën a dal ci àdduna yow jullit bi na ko muñ ndax suñ borom subhanahu wa taala ay soppeem lay teg ay nattu moo tax lislaam yar ñu yarub nangu dogalub suñ borom waaye itam muñ ko muñin wa gën a rafet ndax jamono bi ngay nangu dogal sa ngëm yàlla ngay wane waaye it suñ borom dencal na la ca tiyaabu joo xam ne ëllëg bu ñu la ko wanee nga ne xanaa lii day liggéeyu ma ko woon fekk na yaa ngi ko amee ci lan nattu ak muñ ko moo tax lislaam bu la yaree ba noppi ci yow dangay ngay daal mucc ci jàngoro boobu ñuy tuddee xaru da ngay xam ne naqar wu la mën a dal ci àdduna nga muñ ko tiyaabu nga cay jëlee waaye boo ko jéemee fajee rey sa bopp naqar woy ñëw moo ko raw muy lan taseeg sa borom mu dugal la ci mbugalam dañ ci yàlla musal te mbugal mooma raw na fuuf mu nga doon daw di ko bañ fii ci àdduna ndax mbugal mooma day jokkaloo barsàq eh, jëm ak yow àllaaxira yonent bi alayhi salaatu wasalaam day wax ne képp koo xam ne rey na boppam ci mbir moo xam paaka la wala dafa lakk boppam wala dafa pendre boppam mbir moo mën a reyee sa bopp rek ëllëg mbir mooma day continuer ak yow yowmal qiyaama bu dee da ngaa pendroon sa bopp yaag moom bu dee ay jam-jam la woon suñ borom dana liggéey sa loxo bi mu mel ni automatique di jam sa bopp jamin yoo xam ne yaag moom ba faw mbokk yi nañ xelaat loolu bu boobaa lu ñu mën a dal ci àdduna dañ nangu dogal ba sàkku tiyaabo ja moo tax intixaar min aqbahil kabair bu ñu doon laaj àtteem day naan bokk na ci bàkkaar yu mag yi gën a ñaaw mhm. ndax nag day tax ñu ne ki xaru dafa mujj nekk yéefar déedéet loolu itam nañ ci bàyyi xel ki xaru bu fekkee jullit la woon bu daan julli ba tey jii jullit la bu fekkente ne wéetaloon na boromam gëmoon ko xaru ga du tax ñu ne yéefar la nit nag ñaare la koy yóbbee xare mën naa doon kenn ci sabab yi nuy tudd wala yeneen ba ca jiitu mooy lan <clears throat> ñàkk pas-pasub diina bi maanaam ñàkk a jàng diina ñàkk a xam diina ñàkk a gëm diina moo tax mbokk yi na nañuy jàngal suñuy njaboot diina yar leen ci diina bu boobaa lii nuy tuddee xaru danañ ci mucc incha allah pas-pas bu yàqu rek mooy yóbbee nit loolu waaye it ay crise yu tegaloo ci bakkan bi te borom xamul nu mu koy surmonter ndax dafa réeree diinaam ñaare mooy yóbbee nit ki mu xaru wala taqoo naanum sàngara wala drogue ba mu la ak sa sago nga rey sa bopp wala feebar yoo xam ne boroom dafa dem ba amatul yaakaar ne kuy wér la mu nen na noppal boppam déedéet na muñ la muy tuddee noppal boppam sonnal boppam la bu xaroo day sonal boppam yooyu yëpp kon ay sabab la yoo xam ne danay waral nit ki di xaru wala ñu tooñ ko tooñaange gu metti te ña ko tooñ ëpp ko doole mënta jàmmaarloo ak ñoom te mënta muñ na xar wa mu far xaru yooyu yëpp dana yóbbee nit xaru am na ci nag bu nuy mujjee mooy ah seytaan làmboo ak moom seytaan danay làmboo ak nit ki di ko sadd di ko teqale xelam ba tax koo tàbbi ci teen baa sawara fekk ndeysaan mënoo leen a xàmmee yow jullit bi mënoo xàmmee ki nga xam ne seytaane moo ko sadd ak ñi ci des moo tax lislaam ne xaru day bàkkaar bu màgg la waaye nag du taxa doon boroom ab yéefar des koy jullee bu faatoo nañ ko jullee moom aj xaru jooju sax bokk na ci ñi gën a aajowoo ñaan aha ko defee nag dañ koy bàyyi ci ron coobarey borom bi tabaraka wa taala ndax bàkkaar bu rëy bi mu def ñaanal ko suñ borom yàlla jéggal ko yàlla bañ koo toppee loola ñaanal ko sax suñ borom loola ñuy tuddee xaru ca moom yàlla na doon ne saytaane moo ko ca yóbbee doonut lum tey waaye bu doonee lum tey moom fàww rek mu taseeg mbugalum boromam subhanahu wa taala donte nag ku ku duñ wax ne day béel ci sawara déedéet suñ borom mën na ko faa génnee dugalaat ko aljanna moo tax ay mbokkam nanu koy ñaanal bu baax di ko saraxel di yaakaar suñ borom subhanahu wa taala yërëm ko comme ab jullit la woon mbokk yi xaru du solution bu la mën a génnee ci ay xat-xat mbaa ay crise déedéet xaru nag ci jamono bii nuy toll bëri na lool ndax ñeen fukki seconde yu nekk dana am ku xaru ci àdduna bi 40 secondes yu nekk am na ku xaru ñàkk ba kanam te nee nañu 40 secondes yu nekk kenn kooku xaru ci ca peggam am na ca ñaar fukk yoo xam ne jéemoon nañoo xaru far mucc kon 40 secondes yu nekk juróom benn fukki nit jéem nañ caa xaru waaye ñeent fukki ya ñooy faatu ci moment yii nu mu mel ni kon par at lu mu tuuti tuuti 800000 personnes danañu xaru ñàkk seen bakkan ba 1 million loolu kon mooy wane échec boo xam ne système éducatif u àdduna bi tey échec na ko ba nit ki muy defar xamut nu muy surmonter ay jafe-jafe looloo koy yóbbee muy faat ba kanam danañ ñëwaat ci yooyu xaru nag bu amee bokk na ci li nga xam ne dañ koo dénkaane rawatina ñi nga xam ne ñooy taskati xabaar yi nga xam ne fu xaru amee ñoo koy daal di yëgle nanuy bàyyi xel bu baax jamono bi ñuy couvrir médiatiquement événement yooyu di ko def ci façon boo xam ne bu xelu la façon boo xam ne ña leen di déglu daañ ca mën a doxee bàyyi xaru ah, bu fekkente ne itam ñooñu di xaru dañuy bàyyi ay lettres seen gannaaw ñu ngi dénk suñu mbokki journaliste yi lettre yooyu ñu bañ di ko tas ndax dégâts yi nga xam ne mën na koo créer gannaaw ki faatu yooya ay tuumaal mën na caa nekk yoo xam ne mën na nekk dëgg mën na ñàkk nekk dégg yàq der mën na caa nekk yoo xam ne ca biir lettre yooya mën na nekk dëgg mën na ñàkk nekk dëgg moo tax yooyu la lettre jarul di tas loolu nag xam naa ne sesti muy mbootaay googu nga xam ne ñooy formé suñu mbokki journaliste yi war nañ cee defaraat ay formation bu baax ndax nit xaru wëccëb lettre lettre ba ñu daal di koy vulgariser publier ko mu yàq deru ay njaboot deru ay famille ba ñooña sax bu ñu amul sens la dal waaja mën na leen caa dal bi maanaam mën nañ caa doxee xaru ñàkk seeni bakkan kon mbokk yi ñuy bàyyi xel loolu rawatina ñi nga xam ne ay taskati xabaar lañu dooy na sëkk rek ñu wane la ca lislaam wax ndax ñun ay jullit lañu wane ne xaru dey baaxut waaye itam wan ñi koy déglu ne xaru day du solution déedéet xaru gën a dugal sa bopp ci coono la mu doy sëkk am itam njortu lu rafet ne mën naa am kako ko def tayu ko mën naa am feebaru bopp dal na ko mën naa am jinne jàpp na ko yooyu yëpp ay facteur la yoo xam ne mën naa yóbbee nit ki mu ñàkk bakkanam ci ci lu dul tayef bu faat boppam ci lu dul tayef bu ko defee nag ñu gën a xirtal nit ñi ci xamal leen lii néewal doole xaru maanaam li ko fii jëlee ci ñaari anam yii nu tudd mooy ki ko tey kooka njàng ma ci diina moo xóotul yar ba ci diina moo xóotul kon sunu mbokki journaliste yi foofu nañ fi gën a xirtal nit ñi ci jàng seen diina mën naa amit jinne jàpp ko nañ fi gën a xirtalaat seen bopp ci ñaan yi ndax lislaam dalay jox benn programme bu complet ci wàllu ñaan yoo xam ne boo koy def mën ngaa mucc ci seytaane yooyu jekku la ba mën laa xaruloo bu ko defee jamono yooyu ñuy jàngal nit ñi ñaan yi di ko yaatal ñaan yooyu nag bokk na ci li ci gën a jege te gën cee yomb te ëpp ca solo mbokki jullit ñi ñuy déglu mooy di bëril ayatul kursi ixlaas falaqi ak naasi rawatina gannaaw julli juróom boo koy sa taqoo saytaane mënul ci yow dara di bëri lu mel ni laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah lahu l wa lahu l wa huwa ala kulli shay'in qadir lu mu tuut tuut nga di ko def téeméeri yoon gannaaw julik suba bu boobaa saytaane yi ci àdduna yëpp moo xam saytaane nit la ak jinne bu ñu daje woon mënuñ ci yow dara ndax kat saytaane yi dañuy liggéey te seen liggéey mu ngi jàll yarub lislaam nag li njëriñam mooy dafay suural sa xel ak sa sentiment li sa xel soxla woon ci xam-xam ak leer da ko koy jox sa sentiment itam lim soxla woon ci sentiment yu baax da koy jox waajal ko milieu familial boo xam ne bu ne gimmet gis ñaari jur ci peggam aki mbokkam ñu am ci moom yërmande kon milieu familial mooy njëkk a ki ñëw ci àdduna ba foofu muy gimmee du fa am naqar mu jëmbat ci seen biir bëggante ak soppante ba tey itam milieu social bi muy dund ak environnement bi da koy waajalee ay nit ñu baax ñoo xam ne ku la ca xamaloon ayib sax du ko tudd waaye déedéet da koy nëbbu ndax suñ borom loolu la ko digal kenn du la ca naqaral kenn du la ca sol loo xam ne ci sa biir xol bi luy lakk sab xol la famille bi day dal société bi dal loolu yëpp day yóbbee nit ki mu am environnement familial social bu baax boo xam ne du ca gis lu koy naqari ba mu koy jaral xaru loolu nag la koy may ab société mooy école ba ah, système bañ fay jàngalee di fa yare ñu tibbee ko ci lislaam di jàngal xale yi muñ di leen jàngal ngëm yàlla subhanahu wa taala di leen jàngal gëm dogal gis nga gëm dogal bu ñëwee dañuy daal di xam ne ah lii kat yàllaa ko dogal bu dee accident bu métti yóbbu say loxo wala say tànk gëm dogal ñëw daal di lay gunge nga muñ ko muñin wu rafet ak yeneen xeeti problème sociaux yi yëpp gëm dogal ak muñ moo koy eh, yombalal ba nga mën koo jàll ci anam goo xam ne yaa ngi koy séentu tiyaaba joo xam ne xajul ci àdduna loolu mooy tawaqqul jazaa'i luxrawi yii ay facteur la yoo xam ne école da ko war di jox ak njabootam malheureusement nag boo gisee tey xaru yi bari mooy sunu jàngu yi wax dëgg yàlla programme bu mel nii dafa tumurànke moo tax ñu ne kon 40 secondes yu nekk rek nit rey na boppam faat na boppam rey gi bëri lool mbokk yi nañ leen jàngalaat suñuy doom diina loolu da leen di yombalal jëflanteek àdduna ak i jafe-jafeem da leen di may ñu mën a jàmmaarloo ak jafe-jafey dund bi rawatina nag da leen di may ñu mën a doon ay éléments yu positif ci biir dundu bi du ñu créer ay fitna yoo xam ne nit da cay xaroo loolu mooy li ñu gën a mën a dimbale pour ñu jëlee fii jafe-jafe yi nga xam ne ay day jur ay njàqare stress ba nit ki dootul mën a am integration sociale familiale bu dëgër bu baax waaye dafay am integration sociale bu baax mën a jonjoog société am ak société ci yërmande du jëfandikoo violence ci société am violence verbale wala violence physique waxoon nañ ci ca gannaaw kon mbokk yi sunu psychologue yi ak ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu psychiatrie bu nu xoolee chiffres yu rëy yi nu wax danañ xam ne dëgg-dëgg institut yi nga xam ne ñoo leen di génnee ah, am na manque am na carence bu méttee méttee méttee métti ci ni ñuy sayto ab société ni ñuy orienté ab société ko defee nag sunu mbokki psychologue yooyu ñu leen di orienté jëmee leen ci jàngat diina mënta ñàkk nañu nafaraat seeni programme jubbantiwaat ko dëppale ko ak diina loolu mooy genn wàll gu njëkk gi ci waxtaan wi mu jëmoon ci wàllu xaru li tax nag ñu def ko ci mooy dañuy def léegoo léeg léegoo léeg du toujours léegoo léeg yilimaan yi dañuy am ak dëppoo ci ne ah lii kat nekk na phénomène ma teen cee def ay xutba yaakaar naa ku mel ni sunu mbokk ñu ngi koy nuyu di al imam Serigne Bassirou Diop nekk fii ci al azhar moo proposé woon thème bii dugal ko ci benn groupe ilimaan yu xaw a takku yoo xam ne ñu ngi ci département yi sàkk woon ñu ànd ci thème bi jéem cee jàppalanteeg sunuy mbokki jullit sunuy mbokki doom aadama yi leerlante ci bañ xam ne solution bi du xaru bañ xam ne itam xaru teggiwul jafe-jafe waaye da koy yokk ndax nit ki bu xamoon ne coono bi ko tax di xaru bu ko raw lay fekki yaakaar naa du xaru loolu mooy genn wàll gi xam naa duñ ci mën a guddal ndax dañ cee bëgg a laaf yeneen ñaari wàll wàllug ñaareel gi mooy coow li nga xam ne bari na lool ci semaine bi ah <coughs> ñu koy tuddee ay élection Miss loolu moom coow li mënoon na cee ñàkk bari ndax du sunu aada du sunu pas-pas danañ ci wax tuuti nag mbokk yi euh, élection Miss mu ngi bàyyikoo ci civilisation gréco-romaine vers ay cinquième siècle lañ ko commencé doxal foofa ñoom booba nii nga gis adduna bi Amérique mel ko nga xam ne daanaka mondialisation bi nga xam ne mooy civilisation bi moo gën a tasaaroo ci adduna bi tey démb civilisation boobu moo ko meloon muy gréco romaine waaye ñoom nag lu mu tuuti tuuti sax dañ naan tane woon na ca ñoom waaye du sunu civilisation na leer ndax ñoom ba ñuy def élection Miss liñ ci jublu woon mooy yi muy bëgg a wax danañu may nag ñu topp waxtaan wi bu baax gis saytaane ni muy e, e, e, tàmbaleeg nit ki ci mbir yoo xam ne day mel ni lu baax la waaye fekk na hey fa mu jëm ak moom bu ci àggee ñoom démb dañ doon wax ne dañ daan xool dëkk bi xale bu jigéen bi nga xam ne moo fi gën comportement gën fi conduite nga xam ne kenn mënu koo wax kàddu gun ko yeddee moom lañ doon tuddee ci ñoom la conduite irréprochable ñu ne xale bu jigéen bi ci gën a rafet conduite muy jikko gën caa ragal yàlla gën caa am ngëneel muy la vertu la piété et la modestie xam nga yooyu yépp ci lislaam la bokk ndeysaan mbaax la nga xam ne loolu ay jikko la yu nekk ci xale bi ba marqué village bi nga xam ne ci lay dëkk ci la ci la dëkk wala environnement bi nga xam ne ci la nekk xale bu jigéen booba lañ daan jël tànn ko ci ay critères ay valeur morale sociale yu baax daal di koy eh, joxraaya wane ne moo fi gën jikko ah tàmbali ba de kon baaxoon na tàmbali ba loolu la woon dañoo dem nag ba civilisation booba daanu France mujj nekk pionnière ci domaine bii nga xam ne mooy wàllu élection Miss la ko commencé 1920 la France créé li ñuy tuddee Miss France. Mhm. ah commencé nag di ca dugal ñoom yeneen yeneeni mbir ndax bu leen fàtte France xeex diina ci la tabax civilisation depuis 1789 moo tax lépp luy màbbu ay valeur France da cay yeb loxoom def ca man-manam a jeex ca takk <clears throat> moom nag concours yooyu mu daan def yemalewut ko biir France waaye da ko mujj vulgariser tasaare ko partout ci àdduna bi ba mu agsi nag ndeysaan fi ñun réew mi di Sénégal nga xam ne wax dëgg yàlla ñun nanuy xoolee taar sore yoo lool ak na France di xoolee ñun ni nuy xoolee taar ci jigéen ji mooy jikko yu rafet diinawu am kersa nëbbu ay cëram nekk ku fegu ci ay cëram kenn du ko xamal lenn ci luy niroog xeetu caaxaan ñun sénégalais yi loolu mooy sunu cosaan waaye nag ci ci malheuru dugg si France ci sunum réew ah ci lañ joxe nag ñun itam sunu wàll ci ñàkk kersa ga ca France manque valeur ga ca France summiku ga ca France nudisme ga ca France nga xam ne nit mën naa dox ak yaram mu neen dandar lang romb la na ko ndeyam juree woon loola ñu tuddee ko beauté ah ñëw na mu ngoog tàmbali ba iblis gis nga ko de iblis toxal na mbir ma kon jëlee ko ci ay valeur léegi jëmee na ko ci summi wane sa boppat ak ñàkk kersa moo tax bu ñu xoolee ci ay jamono 1939 ci Europe et concours boobu di ah ñu koy tuddee concours wala élection Miss bu nu ko xoolee da daan yem ca xar kanamu ndaw sax xool xar kanam bi xool bët yi xool gimiñ gi yooyu lañ daan xool ne loolu mooy taar boobu nag lañ commencé di ñàkkal solo jigéen teg ko ci kanam mbooloo muy wane xar kanamam foofu la tolloon 1939 Mhm. mu nekk ci biir mbooloo mi di dem ak ñëw di baagante di wane taaram mhm. mu mel ni jëmmi miss bi dañ koy jël exposé ko ci kanam ñëpp ñàkk kersa nag commencé di évoluer Iblis du yem ak ñoom foofu de maa ngi wax 1939 ci Europe waaye bi ñëwee ba 1946 miss bi dafa commencé léegi critères yi ñu koy tànnee di di évoluer yamatul ci xar kanamu xale bi waaye yaramam lépp la ñuy jël di ko mesurer di ko di ca di ca natt ay taar cër bu ne maanaam morcelé jëmm ji di ko xool cër par cër kon yamatuñ ci xool mu soxna si xam ngeen ne loolu du diina sore naag diina lu ci dugal Sénégal mhm. jël jigéen morcelé ko parti par parti par parti wallaay ndeysaan ñu ne ma wii musiba ñu ne waaw taar duñ ko xool léegi ci kanam rek seytaane ngay commencé nag di yokk allahu noonu ci lañ dem ba jëmmi jamono 1989 ñu commencé di créer ay kër yoo xam ne dañ fay modeler et cëri ndaw si ci façon boo xam ne buñ lay tànn ëllëg modèle modèle booba ñu lay defal ci la ñuy E teg tànn ga yi modélé sa xar kanam sa bakkan say cër benn bu nekk am forme bu bees buñ ko jox soppi bindareb yàlla daal di dugg seytaan yi ngay dem kat foofu nag balan koo jàll dañuy taxaw tuuti wane seytaane lim fi dugal mooy lam waxoon lam waxoon ca saar wa suratu nisa ne wala amurannahum fala yugayirunna xalqa allah wallaahi danaa leen digal ne leen seen yaram yii yéen a ko moom bu leen ko bàyyee dina mu di leen fontoo naan yaram fii nga ci war a yem ak nangam ak nangam soppil lu la neex soppil ay kër daal di juddu xale yu jigéen yi di fa dugg ñi leen di soppil seeni cër loolu ñu ngi ci waawu seytaan seytaane kon la mu def na ko loolu nag da ngay gis ne ab industrie la daal dinay dugg ci biir élection Miss di ci lekk ay milliards yu kenn xamul nam toll nag lépp lu jëm ci wàllu beauté ñu ko fay eh, gaaral comme ay produits yoo xam ne xale ya dañuy dem ñu di leen ko fa jox ne leen lii bu ngeen ko defee ëllëg bu ngeen participer ci élection yi mën ngeen a nekk miis ci seen gox départemental communal régional national ba far ko mondialiser kon Iblis a ngi dugg moom itam ci mbir mi di jëlu àllam bu baax gis nga fam tàmbalee woon mbaax la foofa de tane woon na lu mbon bon bon sax ndax dañ daan wax ne ki gën a baax ci dëkk bi nañ ko jox raaya loola baaxoon na moom waaye daawuñ ñëw nag naan ki gën a taaru ci dëkk bi dañoo dem ba jëmmi jamono ñu dindi mbaax teg fële ne ki gën a rafet xar kanam dem bi jëmm jamono ñu ne ah taar yemul ci xar kanam nan jàll nan morcelé nit ki ndaw si di xool cër bu ne di xool ay ay ay poqutaanam di natt ay weenam tolluwaayam di natt legg ba la ko commencé ca poqutaan ba ba ca legg ba suñ paree natt legg bi ba ci wóom bi mbokk yi saytaane daal dinay dugg ñu ne déetawaay ñu ne ay kër yoo xam ne léegi gars yi dañ fay dugg ñoom soxna yi ñu di leen modelel seen yaram te nuñ ko gën a modeler ci forme yañ bëgg foofa rek ëllëg boo demee ci élection yi loolu mooy ci ngay gën a amee sens pour jàll <laughs> seytaane dugg na industrie dugg na sunu diinaa ngay dem sunuy valeur dem na sunu koom-koom a ngi ca topp seytaane nga mbokki jullit ñi mbokki jullit ñi soppi aw yaram dafa xaraam itlaqan yonentu bi alayhi salaatu wassalaam ci xadis bu wér a ay xadis sax laay wax yu wér rëbb na képp koo xam ne dafay soppi aw yaramam mhm. ci ay xadis yu bëree bëree bëree bëri nag loolu la ñuy tuddee soppi aw yaram dafa xaraam mutlaqan la tabdila li xalqillah suñ borom daf ne déet bu leen wattee mukk bindre bi leen yàlla jox beneen bind kon soppiwu yaram dem ñu di la ko modelel dafa xaram loolu nag bokkul ak diw yañ lay jox nga di ko diw ca yaram wa muy joxe weneen melokaan ci biti kon ñaari façon soppi yépp la élection Miss favoriser bu ko defee ñaari façon soppi yépp nag ab industrie lay jur alayhi salaatu wassalaam wax na ci xadis bu wér ne laana llahu alwaashimaat wal mustawshimaati almugayiraati li xalqillah yàlla rëbb na ñi nga xam ne dañuy soppi seen yaram ci njam njam bu njëkkoon amoon na fi ñu soppi tuñ mi soppi lex yi soppi fu ne ñu dugal fa ay ñuul ñuul ci xar kanam bi ah loolu yëpp mbokk yi day dugg ci buntu def ndigalal seytaan kon foofu duñ fi mën a guddal ndax émission bi dafa am geneen wàll gu des waaye daal industrie dugg na kersaa ngay dem di tàggoo kale yaa ngay dugg ba ci biir ay salon ñu fay soppi seeni cër foofa la musiba woon gën a commencé dugg ci biir barab boo xam ne ay góor aku jigéen nee nañ yoo ñoo fa nekk di soppil xale yi seeni seeni cër wallaay ndeysaan foofu nag yaram yi ñu commencé di ko métamorphoser di ko défigurer nga gisoon xale bi mu mel nii ëllëg nga gis ko mu mel neneen yor beneen melo wallahi ndeysaan seytaane di wéy di wéy waaye it ñu ne beneen industrie dafa dugg si waat ci élection Miss ndax candidat bii nga xam ne mooy ñëw bokk participer si ci élection yi dañ naan ko mën ngaa tànn tenue bu la neex bu ko defee nag ah ñay defari yére ñoom itam daal di dugg sponsoriser élection Miss yi indi seeni tenue bu ko defee xale yi nekk ay jaayukaay yu yére boo solee bi dugg ci biir mbooloo mi waay waay waa waa waaye bien dox dem dikk summi booba wan ko àdduna yépp dañuy xale yi ndeysaan dañuy daal di bëgg ñoom itam ëllëg ñu ne sunu élection miss ba kat miss ba lii la soloon industrie booba daal di eh, gimmi kon gis nga ay industrie ñoo ci aju yee dañuy soppi jëmm ji ci modélé ko yii dañuy soppi jëmm ji ci soppi melokaan wa muy eh, ñuulaay ba wala melokaan wa mbindoo woon yii ñoom dañuy ñëw eh, di exposé seeni yére la gën a bëri nag mbokk yi ñi sponsorisé élection miss yi bu da ngeen bàyyi xel ne ay membre la ñuy doon ci li ñuy tuddee jury bi mhm. mooy ñi nga xam ne ñooy organisateur u ah mbir mi ñooñu ngeen fay gis ay caaxaan andiwut leen fa koo fa gis rek benn homme d'affaires bu mag la industriel bu bu rëy rëy la dafa ñëw pour jaay si am marchandise am jaarale ko ci xale yooyu bu ko defee xale yooyu nag ñoo leen di waneel marque bi marque bi marque bi nga xam ne moom la industrie bi génnee jaarale ko ci événement bii nga xam ne moom lañu ñu tuddee élection Miss économie daal di dugg dugg na bu baax mhm. ñii indi yére yoo xam ne mooy yu jiitlu yi di ko wane yi ci kaw di ko wane ay mayo di ko wane xeetu diw gu nekk it daañ ko fa wane kon élection Miss mbokki jullit ñi du mbirum ab jullit du sunu aada du sunu cosaan yii nag ci laa mën a yem waaye am na yu gën a ñaaw yu nekk ci biir yoo xam ne ab jullit wax dëgg yàlla mënu caa àgg ndax noonu ñu leen defee ay objet yu ñuy jaayee ay yëre di ca jaayee ay ay produits yu ñuy diw ci yaram ah malheureusement buñ amul sens ñoom xale yooyu noonu la ñuy mujj nekkee sax ñoom ak seen bopp ay produits yu ñuy jaay nga xam ne dootu dootuñ leen def rek objet yu ñuy jaayee ay yére ki yeneen waaye ñoom ak seen bopp ay produit lañ noonu la ko ngóor sa waxee woon ca waxtaanam wax du bëgguma tudd turam nee na miss yi seeni seeni produit lañ lu ñuy organiser lu nekk président di ñëw ci réew mi wala ay ministre ay homme d'affaires xale yooyu la ñuy jël muy seen produit ñëw exposer leen moo tax fi mu ne damay wax ne dafa jot wax dëgg yàlla nag ñu jógaat xam ne lii yàq bu rëy rëy la ci sunu xeet ñun ñëpp ñu àndandoor e boole sunuy doole xeex ko mu jógee fi ndax lii li ci nekk ci yàqu e dafa bëri yéen ñi nga xam ne nag yéenay way jur yi wax dëgg yàlla am ngeen ci part de responsabilité bu rëy sa doom war nga koo yar ci kersa war nga koo yar ci sutura war nga koo yar ci bëgg boppam ba fu ñuy exposé ay xale yu jigéen tuddee leen ay produits yow sa doom du ca bokk malheureusement nag <clears throat> ak éducation bi nga xam ne ñun moom lañ fekk ci sunu société yóbbee nañu malheureusement ay waajur yoo xam ne yu bëree bëri ci seen diina réeree nañ ko ndax yaakaar nañ ne rek yooyu yëpp dara newu ci seen doom yi jigéen war na caa mën a participer waaye xamuñ nag mbir yi fa muy àgg fa muy àgg ñoom xamuñ ko waaye buñ ko xamoon jàpp naa ne way jur yu bari duñ bàyyi seen doom ñu ñu cay bokk mbokk yi nit ki dafa am ci moom lu ñuy tuddee war ma ñu koy tuddee awratul rajul wala mar'a alayhi salaatu wassalaam daf ne laa yanzuru rajul ila awrati rajul wala al mar'atu ila awrati al mar'a mu ne li nuy tuddee awra ci góor góor ak boppam góor waru koo xool ca morom ma awra ci jigéen nag mooy lu dul xar kanam baag e ñaari tànk ya <clears throat> ñaari ñaari loxo ya ñaari ténq ya ténq ya Mm-hmm. wama ada wama ada wajha wa kaffa alhurrati yajibu satruhu kama fi lawrati noonu la ko borom téere ba waxee jigéen lu dul xarkanam baag ñaari ñaari tënk ya ci moom da koo war a muur comme nu muy muuree e la gën a nekk awra ca kon loolu nan ko bàyyi xel jigéen amul sañ-sañu di exposé boppam ci kanam aw góor te li ma gën a jaaxal mooy booy booy def gëstu bi da ngay gis ay membre jury bi foo xam ne ay góor yi kese la ñuy doon ay góor yi kese wallaay ndeysaan jàpp doomu jàmbur futti ko ba daana ko na ko ndeyam woon ñuy xool cër par cër di natt yor seeni mètre di natt mbaa way jur yi xamoon nañ ne noonu yi la def seen doom ñu bari ci ñoom dey xamuñu loolu waaye noonu yi la alayhi salaatu wassalaam nee na kutiba ala bni aadama nasibuhu min azina mudrikun dalika la mahala nee na nit ki suñ borom dafa bind ci moom eh, ab cëram ci lu muy tuddee njaalo nga xam ne loo ca def rek dañ naan lii njaaloo la mu ne al aynaani zinahuma nadar am na boo sax wax dax ne tasnayaani wa zinahuma nadar mu ne ñaari bët yi dañuy njaaloo de kon wëcc sa doom ñu koy exposé ci adduna bi lépp ci ay télévision ñëpp jàkkaarloog moom bi maanaa sa doom boobu adduna yëpp a ngi njaaloo ak moom ci seeni bët la ilaha wal tas na yaan wasina al istima mu ne ñaari nopp yii dañuy njaaloo seen njaaloo mooy déglu làmmiñ day njaaloo njaaloo mooy wax loxo day njaaloo njaaloo mooy laal nga xool sa sa doom ñu wëcc ko ñuy nab bu nabbee ay cëram fu ne ñu laal fu ne ñu àgg moo tax civilisation bi gën a salte ci xeeti civilisation yi dëgg dëgg mooy civilisation occidentale française wala sax dama naan civilisation occidentale maçonnique bañ a tooñ yi loolu danaa koy faral di wax ndax France ay a nga fa ay chrétien nga fa yoo xam ne jombale nañ seen njaboot loolu jàpp naa ne jullit bu baax bu xam du bàyyi doomam muy muy muy muy muy dugg ci yu noonu ci gàttal xool loo warta xool ci soxna loolu xeetu njaalo la yooyu foofu lañ ci mën a yem ndax émission bi mën naa am li des bëriwul te dañoo bëgg a dem ci troisième parti ñu ñuy joxañ ne juróomi minute rek ci des ñetteelu partie bi nag ci xutba bi tey ñu ngi ko jëmale ci maandu maandu wax nañ ci lu bëri waaye nag duñ dañuy continuer di ci wax mbokki jullit ñi nañ leen dool delloo si waat maandu ci sunu société moom lañu suñ borom digal am na benn euh, groupe boroomi xam-xam yu jóg ci réew mi jël initiative am ab benn pacte buñ ñu tëral tuddee ko charte de non violence ah idée bi de baax na trop baax na ndax ku xool violence ci àdduna bi ci rawatina ci sunu réew mii waaye nag rawatina bi élection yii di jublu si desatut lu bari nii muy màggee di jël ay ampleur yoo xam ne kenn mësu koo gis ci sunu réew nga jóg jël initiative ne non violence ñëpp la war a appuyer ñëpp la war a dëgëral waaye nag ñëpp war a taxaw ne la hey hey commission non violence ci réew mu mel ni Sénégal dafa am fu mu war a commencer nan seet ñi violents ñi ñan lañ ndax kat violence yi moom am na acte de violence am na gis nañ fi ay nervi yu yore yet di dóore bay door ay gune yu jàngi woon l'école di ñëw loolu moom ñun ñëpp teg nañ ci suñu bët gis nañ fi nervi yu yor paaka ak jaasi di jam yàggul dara fii ci Casamance am na ci koo xam ne fañ ko jam yàllaa ki def sutura rek ak ndimbalam bakkan ba yemu ca waaye la tuuru ci moom ci deret mënoon na fa yem violence yooyu gis nañ ko fi gis nañ fi violence bu àgg ci jël bal réel tiire ci kaw doomu aadama mu ne lépp bakkan ba doxee fa dem ñu def ko kenn ñaar ñett gis nañ fi violence boo xam ne loxo ba lañ ne nammit xale boo xam ne tànk ba lañ yàq violence kon am na rey googa dem ba ci fukki xale yoo xam ne nekk nañ ci seen buntu àdduna te lañ doon def ñu am ca sañ-sañ muy lan am naqar wane ko ñu gis ñu leen di violenter ba rey ca fukki bakkan nangam nee na ñeent kon violence moom réel am na eh commission commission bi jóg ne charte de non violence tàmbalee leen foofu régler leen problème u nervi nan toppatoo nervi yooyu kilen leen kan la ndax am na sañ-sañu yebal ay ponkal ñu yori yet di dóore yori paaka di jame yori fital di di ay doomu aadama ndax am nañ ci sañ-sañ charte de non violence commission ta tàmbaleel foofu man damay dem sax ba naan problème mu Barthélémy Dias bu buñ koy commencé dañ ko commencé ca ka yebaloon Ndiaga Diouf kan la ka ay nervi ñu bàyyi ko cib quartier bu sori ñëw ci quartier quartier ba quartier yor seeni woto seeni gourdin seeni yat seeni malugul dugg ci barab di saccager hey juge procureur atte bi na commencé ci seet ka leen yabaloon kan la bala ñoo attee nervi yooyu nan seet ka leen defi nervi sant leen ay mission sanguinaire ñooña lañ war a njëkk a xool seeni mbir ak kum mën a doon ak kum mën a doon na takk mbub gratu président de la république bu dee kookaa leen yabal ca jamonoy nervi yooya ca ñoom Njaga Juuf nervi yii ci jamono yii nga xam ne génn guñ ko ca Casamance ca Fouta partout nan xool ñooñu ñi leen recruter def leen ay nerf yi ñuy dóor attay foofu la war a commencé charte de non violence foofu la war a commencé waaye bu leen ñëw ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy violenté di leen dóor di dóor seeni njaboot di leen jam di leen rey ñu commencer ci tëral leen ay charte naan charte de non violence foofu du commencé kay bi kenn bëggul violence waaye it nag fa man ictada alaykum faatadu alayhi bi misli ma atada alaykum bu ko opposition bi defee nañ leen teg ci yoon bu ko parti au pouvoir defe nañ leen teg ci yoon kenn amul sañ-sañ recruter ay nervi di leen dóorloo ko reyloo hey commission de yow mi tëral charte de violence boo bëggee sa liggéey am xayma dëgg am crédibilité pure tàmbaleel fii bu boobaa ña lay xool di la bàyyi xel xam nañ danañ xam ne hé kii fi mu tàmbalee fala boo réglé loola ba noppi nag boo indee sart bi ñëpp kontaan ci am maa nag kii dóor di dóor kii rey di rey kii jam di jam nga andil ab charte naan charte de no violence te réglé woo lee loolu yi ngay def tàmbale woo ko fa nga war a tàmbale inna allaha yamuru bil adli wal ihsan yàlla maandu la digle maandu nag balance la gis nga balance xàmmeewul président ak baadoolo bu president andi woon kilo teg ci balance bi ci loxoom ñu ne loxol président moo indi kilo teg ko ci balance bi balance moom kilo rek lay génnee xawalut loxol yi waaye bu am Aliou Ndao jógee fële ca toolam ca Diourbel gàddub kilo moom itam ñëw teg ci kaw balance bi balance xamul kuy Aliou Ndao ak baykat laag du baykat sàmm laag déedéet déedéet moom liñ teg ci kawam képp lay génne loolu mooy justice kon mbir yi nañ ko teg ci maandu yéen ñii nga xam ne yéen lañ teg justice ci seen loxo ah ñu ngi leen di rendee ak yet waxuñ ne ñu leen di rendee gi paaka de rendee ak paaka dafa yomb ndax boo tegee rek mu dagg waaye jëlu bant di xiiti xiiti ci doq fa yéene ko faa jëlee moo gën a métti noonu yi nag ni lañ def justice ren wala boog justice su tey dama naan justice su tey ngeen baal ma ci waxin bi justice su tey dañ koo tënk njoñ ko ci àdduna bi yépp nag rawatina fii ci Afrique kon mbokk yi loolu mooy ñetteelu parti bi nga xam ne ñu ngi ko jëmale ci commission boobu mbooloom yilimaan yooyu tuddee seen bopp mbooloo mu jóg pour indi lu fi jëlee violence cadre boobu de cadre unitaire booboo ko baax islamique booboo ko baax waaye na tàmbalee fee bu bëggee am xayma yal na yàlla dimbale leen nag ñoom bañ mën fee jëlee violence waaye fi ñu ko tàmbalee du fi de xasa ñu ngi ñuy wan suñu waxtu jeex na kon ñu fàttaliwaat mbokk yi nga xam ne ñooy ñoo ñu doon topp fii ci euh, Kepar FM nekku ci bëgg a jokkaloog émission bi mooy 33 959 20 cinq ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm waaw bisimilah. waaw dama kañ ji yëpp jërëjëf jërëjëf jaawa